asalaamaaleykum suñu auditeurs yi euh, Tout Info TV ñu dellu siwaat tey ci suñu série émission histoire du Sine tey nag ñu ngi leen di waxtaanal ci benn événement boo xam ne dafa amoon Sine diggante euh, Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba ak Buur Sine Coumba fen dem te ñu gën ko xam ci turi ma njem so dege turi ma njem bi yaayam mo tuddu jëm parce que dafa am ñaari busin kumba ndofen ma do ndofen bu mag do ndofen fa mag nga xam ne moo jàmbar la won ak ba jaxu ak do fen ndofen ma njem mi nga xam ne moo defoon seede bu bi nga xam ne la sédé won sëriñ rasul eh, ci saint louis

du témoignage du boursier commandophène à l'endroit de Khadim Rassoul le 7 juin 1903 édition bi Nak, amon, en 1989 temps boobu euh, Cheikh Abdel Khadr Mbacké suñu sëriñ Mom, moo nekone général des Mourides mom mo nga moom moo ko présidé woon ci stade Iba Mar Diop et affaire bi law di dem di dem di dem ba ñu déplacé ko stade Iba Mar euh, yóbbu ko euh, Daaru Marnaan dinañ ci dellusiwaat ci yeneen émission lu tax ñu yóbbu ko Daaru Marnaan mais dama bëgg rek ñu ñëw ci contexte bi ci li nga xam ne loolu moo tax euh, euh, euh, témoignage boobu amoon xam nga dañ toll woon ci époque boo xam ne buur yi bare woon nañ fii sëriñ si bare nañ fii chef coutumier yi bare woon nañ fii am na ay muqaddam yoo xam ne itam bare woon nañu fi sëñ Touba dañ ko njëkk a déporté yóbbu ko Libreville au Gabon bi koy booy Libreville histoire bi ñëpp xam nañ ko def na fa juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom-ñaari waxtu ainsi de suite ainsi de suite mu ñibbisi bi mu ñibbisee ñu déporté ko yóbbu ko Mauritanie mu yàgg fa lool dellu si ñu mettre ko en surveillance en résidence surveillée fii ci euh, Njaaréem Diourbel nekk fa nag parce que tubaab bi dañ ko ragaloon ñi fi nekkoon itam ragaloon ko fi ndax xam-xamam ndax am amam ak toog julli jàpp jàpp julli jàng alxuraan liggéey dafa nekke woon di ko monteel ko di ko booleeg tubaab bi ba tubaab bi bu ko bu ko déporté gaa ñi ne euh, affaire bi naka deme demee bi ni mu demee nii la demee dafa euh, defaroon ñaari kër benn bi daar salaam benn bi daar marnaam bi mu toogee bi nga xam ne këri pare na mu yoon ni benn frère am bu ñu doon tudd maam Cheikh Anta Mbacké di frère moom la yónni woon ak Cheikh Ibra Fall ñu dem Ndar jënd ay meuble meuble en fer forgé ay lal ay tagar yoo xam ne dañ ko defaroon pour foo xam ne daf ci ma teg téere yi ak li nga xam moom la bindoon bi nga xam ne Cheikh Ibra ak maam Cheikh Anta dem nañ Ndar jënd matériel bi taa booba oto amul ou alors en tout cas oto bariwuloon donc pratiquement voyager nous ñu def da ngay fas dem fi ci chargé itam ñu marchandise et nous ñu chargé marchandise chargé ko dem jënd ko amoon na fi benn déeg déeg boo xam ne ndox ma defal lewetoon dañ ko doon naan dañ ko doon naan naan dal itam ay ay ay jur ñu wàcce bagage yi bi ñu wàcce bagage yi nandal fas yi dem ci beneen wàllaa bi tànq seen kii naan di naan ci instant boobu nag ci leen benn pël bu tudd Demba ñaari fekk ñu leen fi fekkee nuyoo ak ñoom jàmma santé changé ay propos mu leen wax yéen fan ngeen jógee ne ak seen bagage yu bari ñu ne ñu dey cheikh bi Serigne Touba moo ñu yónnee woon ndar ñu jënd ay meuble pour ñaari karam yu nekk daaru salaam ak daaru marnaan mais xam nga matériel bi dañ ko dugaloon ci ay saaku xoolee saaku sa yu doon wax saaku sisal yu ko ci dugalee malheureusement ci lal yi am ci benn lal boo ah, ci saaku yi am ci am ci euh, benn saaku boo xam ne tànku lal bi dafa bënn saaku bi alors Demba Ñaari daal di ñël jël loxoom jël baramam dugal ko ci dugal ko ci bën ci ci ci ci tankulal bi bu dafa niro ak canon fusil ak ak canon fetel alors mu dal di def conclusion personnelle saa wax ki ko wax wax xalaatam mu tàggoo ak ñoom dal di dem bi mu demee gis mbaaxaan yeneen ah yéen de yéen a ngi toog wante sëñ Bamba de toogul dafa nara a xare de dafa nar a jiyaat ak tubaab yi te su jiyaate ak tubaab yi su pare ci tubaab ci bi ci yéen lay dal alors mu ne ko lan la tax ma loolu tax wax loolu mu ne dafa jënde woon ay ay ngànnaay jënd na ko ndar bi mu ko yóbbu ko yóbbu Tuubaa ca karab ga nekk Daaru Marnaan ko am boobu waaw mu ne ko wóor na la mu ne ko wóor na ma kañ alors Demba Ñaari bi mu waxee noonu mbaxaan mbaxaan tam jàpp loolu aussitôt après mu dal di avertir ki nga xam ne mooy commandant Merlin bi nekkoon njaareem à l'époque commandant Merlin nekkoon loolu am na mu ne am na kañ